over the closing session of the seventh cabinet retreat in Kanilai. National Assembly members have been talking about an array of development issues bordering on the welfare of the electorate during the adjournment debate marking the end of the first meeting of the legislature in the 2013 legislative year. A manhunting mission of an unprecedented scale, police and FBI agents are embarking on a desperate house-to-house -house search for the surviving suspect in Monday's Boston marathon bombings that left three people dead. And violent clashes uh, hit Bahrain days before the Gulf state plays host to the much-fancied Formula One race. That's all in this edition of the news. Thank you very much for your time. And the highlights of the closing ceremony of the 7th Cabinet Retreat in Kanilai is coming up next. Meanwhile, enjoy our programs. black, Govi present, Abdougueda Sek, Golem Dargate, 11 mai 2013, Chingandu Mamu Galadino, bu exceptionnel, Gagne fan lay xewee ca Baada Suite Hotel, So dégué Paradise daal xel dem ci penc bi noot, ànd Seck doomu Ndar Gate, xale bi nga xam ne saa yu woyee xool yëpp kontaan. mbokki Gambi, man Abdougueda Sek, maa fas yéene ñëw ànd ak Govi ci fundraising bi nga xam ni moom la def jàppale leen ci. yëf yi dafa war a toj luy jot jot na addu gi te Gambia

ngoog bu leen ko kenn nettali fukki fan ak benn ci weeru mai 2013 góof yi di gala dina Banjul International Education Fair 2013 da nga doon gënt dem jàng bitim réew si sama bi wala September. dama ne sa gënt doon na dëgg ndax study abroad group ñëw leen amal International Education Fair 2013 ñëw leen ñu dajee toog waxtaan ak professional si ak expert councilor si bàyyeekoo si university si ak college si na ci Amérique Angleterre Canada Germany Malaysia ak yeneen réew te li ci gën a neex mooy mun ngaa bindu ci saas gi te doo ci fay dara pour gën leen a yokk cawarte amal nañ leen raful droit ci bés gi nga xam ne mun ngaa win scholarship nag dem jàng ci North American College doj bi ci Texas mun ngaa wini tamit laptop bu berbuset buur bu set ci diiri ñaari fan yi ajjuma lay door ñaar fukki fan ak juróom benn jeex samedi ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci april fukki waxtu yi ci suba juróom waktu waxtu yi ci ngoon buur bu set Hotel ndugami laa yuñ leen dara mun ngaa jël sa ticket study abroad group set office bi nekk ci Bakaw school wala nag ca buntam it International Education Fair 2013 lañ wax ak si leen boo leen bëggee jàngi bitim aleykum baabi maaleykum salaam ade bara alim bara albe kay sumon bebe nya bakara erta sanatu sumon bebe nya korta era korta ande yo ndolbe nara tamon tamon la pour que mol konte korta mm. kabo korda kata korda ha ali bonali ali nan de kante konte kambe ko den na dimbal kan konte tani dima kam ko na dogol en ko dugala talla hajol wayi ndigal nambe men kala yo mum ɓe je wala mo ñunde gambia man sakunda ela bunda mum yayoy ka fay ko jibos mhm. walle mo wolwilinde pour que gambia banque ɓe tama ka ɗum korda to korda ka lon ko haɗama ɗin o mojelle ɓeytela korda kono mhm. numo bota je ñantalon ne la bun korda kono bun kono bun jellebi je ni yalon bun jellebi je ñantalon ne laɗlaƴelle ɓe la bungo kono wo koole ñantalon ne la wañoɓe ñaaɗile kamo mum aɓe ñaaɗile pompo lomban fo kolon lomban wo ɓe mo kuulete mum ya lon ko ñin ɓe solariŋala pour ka lon ñin kama pour kam makoye wala mum nasirode ɓaɗo nin kaccata doron ɓe ñoofa hamlal wo kontiron naata wala kandi amman ka kasiti onon ñimman ɓa nin kaccata doron ɓe ñoofa hamlal ah. yo bisimilla altamina altamina altamina e eh, nakkeɓa na komi mm-hmm. a fo ye nu ñaami a bo ñaami nin kacca kita doron be ño kalamutalal alkalo ya kalamutal alkalo a kalamuta sefo ya kalamuta kumandoŋo a kalamuta alma eh, kumandoŋo a kalamuta wol be son ah, a bidunga banda e eh, say eh, fakilak mbe men kela e ale men fo komi malon teng ni nga lon teng denun da fala le ko alta bar say mbe men kela ale be la ndel ha bangola da halon wodi mbe malon teng ni nga lon teng den da kam fala la bulu sa kam ba fala ita tolu eh ndomu ni ma jamel aha ya na manyo eh muso siya tam gulle ha muso fo muso fo muso fo bin damaram sang aha jena ba samure ñaara jaab wani juma